ربي بما يشرح اللسان قد فجها بجاء أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح اللسان قد فجها بجاء أفضل من لله قد لجأ حمد لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتيا ملاها محمد صلوات الله في أبد علي في اسمه كل بي كلاها sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid barayi mbokk yi tedd yi ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala ci sangub sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di sant yaakaari jaam ñi si ahmadou bamba xaadimu rasul di ñaan sëriñ muntaxa mi nga xam ne moo toogee ab jataayam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéeyu seexul xadim bi di nuyu di ziare waa daaira Miftaahu Sahaada nekk fi jàmm gën jag ñëw fi tey ngir amal ak ñoom seenub yëgle bu jëm ci sant gi sant a Cheikh Saliou Mbacke yàlla ñu ko yàlla fayal ren ji war a tolloog ñaar fukkeel bi ak ñett ñu di ko def ànd koog waa gox bi waaye ànd koog fépp mbokkum taalibe nekk waaye fépp ab julit nekk ñu di ko amal incha allahu rabbul alamin fii nga xam ne mooy jàmm gën cak saaw xam naa bala ñoo sori ci kàddu yi danañ jox sëñ Mara Gueye mi nga xam ne jëwriñ la mu leeral doxin wi ak bis bi ak ñi mu ciy woo bu defee mu wax ci kàddu daara ji waaye sëñ Juga Wàdd mi nga xam ne moo doon yëkkati xaj di am solo yëpp ñu ngi koy jaajëfal muy rabi maestro bi mu tijjee léegi dafa mel ne laytaay ne liñ bëgg a wax ndax ku mel ne Serigne Saliou boo koy wooteelu bis ubbi rabbi maestro dafay mel ne woote bi suñu borom nangu na ko ba pare ndax dafa am bayit bu nekk ci biir xaside gi mu yaamaalikal mulkiya man jàllan xaw di di xam jami alwara dundam gépp loolu la woon muy nekk yërmande ci jaam ñi comme ni ko borom bi waxee ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin Serigne Saliou yërmande ji fi suñu borom andi woon la kon dafay mel ne xaside boobu mu tudd léegi junj na li ñu bëgg a waxtaanee kon bu ko defee dañuy jox sëñ Mara mu sànni kàddu yëgle bu ko defee ñu doog a coordonné ci yeneen jëwriñ yi sëñ Mara bisimilah. mbokk jullit di mbokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar eh, rawatina mbokk yi nga xamante ne noonu lañ àndal liggéey bi di waa Touba leen di ziare bu baax eh, di leen fas yéene jottali bis bu nu baaxoo amal mi bisub sant Serigne Saliou ren nag nekk eh, ñaar fukki at ak ñett ñu koy amal fii ci saaw ci woo mbokki jullit yëpp di ci woo mbokki taalibe yëpp e réew mi ak ci bitim réew rawatina suñu jëwriñ yi nga xamante ni bi ñooñu nekkal ci bitim réew te bokk ci daayira bi ci woo di leen ko fàttali leen xamal nag bis bi nag dañuy bis boo xamante ni dañ ci amoon ndigal muy ndigalu sang ba Cheikh Salif Mbacké mu waxoon nañu am ngeen ci ndigal te ngeen ko yaatal yaatal googee tax ñu def ci suñu yitte ba fu ñu ci toll di ci woo mbokki jullit yëpp bu defee ñu koy fàttali ñëpp samedi lay doon 26 janvier incha allah ni ñu ko baaxee ànd ci programme bi dañ ci ànd ak euh, bu ñu xëyee njàngum alxuraan ak xasida euh, yendu ak bernde bu ñu demee ba ca guddi ga it incha allah suñu jàngkat yi nga xamante ñoo nekk ci daara ji ku mel ni Serigne Ndiouga Wade mi tàmbali liggéey bi léegi ak Serigne Fallou ak saa ñoo koy ubbi ci wàllum njàng ànd ak kuréelu xasida daayiru Miftaahu Saada bi nga xamante ne bi ñoo yor liggéey bi ak mbooleem kuréel yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi ñu euh, woo ci. Euh, bu ñu eggee ba ca guddi ga waxtaan wa sëriñ wu Sàmb incha allah moo koy amal waaye ci njàngam xasida mi it sëriñ Cheikh Diop Mbaye moo koy fanaane kon ñi kiy woo ñëpp di leen ko fàttali bu baax euh, rawatine mboolem ñi nga xamante ne ay membre daayira lañ nekk ci bitim réew moo xam Italie wala France moo xam États-Unis wala Japon ñu ngi woo ñëpp bàyyiñu kenn xam naa buñ ci limee ku mel ni sëriñ Basiru Cubb rek nekk jëwriñ ca Italie mu koy fàttali ak mboolem ñu fa nekkal sëriñ Baxaw ak euh, mboolem ñu féete ca gox boobu bu ñu demee ba États-Unis bu ñu waxee ku mel ni soxna euh, Mariama Guèye ak mboolem ñu fa nekk ñi ngi leen koy fàttali bu ñu ba Canada it allah ku mel ni soxna Mariama moom tamit ñoo ngi koy fàttali bàyyiwunu kenn mboolem ci réew mi ci bitim réew kon xam naa ne euh, ci euh, foofu la ñuy taxawlu jox sëñ Babacar Sarr dina eggale li ci des incha allah donc ñu yoon ñëpp leen ko fàttali ñëpp rawatina mboolem ñi ñu bokk liggéey waaye daara Miftaahu Saada ci turu Serigne Ndongo Ndaw ñu ngi koy fàttali ñëpp ba kenn asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bis bi dañ ci ndigal ndigalu kan sëriñ Tuubaa sëriñ Saliou Mbacké ndax si baaxu maaraam mi nga xamante ni bii mooy jëwriñ ji biñ demee di ko siyaar ku ne xam na ni siyaar di demee dangay liggéey at dajale la nga xamante ni moom la murid yi dajale dajale ki fi nekk sëriñ Tuubaa ñu yóbbul ko ko biñ àggee ba si loolu buñ demee yóbbu ko si sëriñ bi sëriñ Saliou yàlla yàlla dool leeram tax ci barkeem yàlla dimbali ñu roof am xel akum dimbal si suñ jëwrin mu àggale sëriñ Saliou xamal ko ne ko ginnaaw siyaar bi Mbàkke ñun dañuy wàqiliwaat si sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fu te wér bu loolu weesoo nag ñi ñaan sëriñ bi dañ daan def sant sëriñ Saliou suñ teyu bakkan bisub tey bii nag ginnaaw siyaar bi ñuy ñaan si sëriñ bi ndigal loo xamante ni dinañ am ndigalu sant sëriñ bi ak ñaan sëriñ bi si baaxam rafetlu ko. nañu taxaw ab diir nañu waaw sàllaaw de am ngeen sama ndigal ne ngeen ko yaatal sama loxo ngi si biir loxo bi sëñ Saalu nekk si biir nag moom ku xool jataay bi rek ak ni daayira bi dooy xam ni moom ma nga si biir ndax lu ñuy def ñaar fukki at ak ñett euh, télévision Touba Vision ñëw fi tey jël avant première bi kon mën nañu bokk ni la sëriñ boo xam ne sama loxo ci biir wér na ñun daal ay ndaw la ñoo xam dañoo nekk fii si Touba wàqi naan jak saaw nekk fekk suñu borom suñu borom dimbali ñu xettal ñu liggéey sëriñ tubaa te liggéey sëriñ tubaa moom yaakaar naa gisuma ko koy def di ko rëccu lu si waaye def lu ne sa bopp nga ko defal kon nag moom mi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal man kanamam man ginnaawam sëriñ Saalu mi nga xamante ne bii mooy sëriñ Saalu gu wér te ñu xam ko yàlla nañ si yàlla defal lu kawe njort ma ñu fan gudd ànd ak jàmm ma ñu wér ak wér la mucc mucc la dañuy sant mënuñoo wax ba pare te sant ñu nga xamante ne mooy borom kër gi di sëñ ndongo mi nga xam ne moo toog ndax kat ngi tolloo si wàllu denc ay matériel ak wala dajeeg yooyu moom dane sama kër def naa kër sëñ tubaa ku fi yaatu yaa fi yaata sa bopp ku fi xat yaa sa bopp kon nag bu ñëwee lii amee fi si eh, màkkaan bi kon waru ñëw tudd ba pare te duñ ko ñaanal fan wu gudd ànd ak jàmm di sant tamit eh, mbooloo mi nga xam ne moom la suñu borom dogal ñu ànd kook ñoom ndax foo tuddee góor tudd fa jigéen am na jigéen ñoo xamante ñu leen tuddee daayira maam jaara ñi ngi fi am nañ pas-pas lool te bëgg nañ sëñ bi ay jàmbaar lañu lool ci bis bi kon nag ñi ngi ñaan ñoom it yàlla na sa borom dafa kawe leen fan du gudd ko ak jàmm lépp ñun suñu yéene murit mooy liggéey sëñ tubaa kon nag loolu ñoom yéene rek di liggéey sëñ tubaa yàlla na sëñ tubaa defal lu kawe suñu njot ci barke sëñ tubaa Cheikh Fall fi yàgg lool te ànd ak wér ci barke borom taax Cheikh Fall di sant tamit sëñ mi nga xamante mooy suñu jëwriñ ci daayira bi lépp lu ñu am wala lépp lu ñu man ak fépp fu ñu yegg loxo ma ngi ci biir kon kooku ñu ngi koy sant bu baax te di ko delloo njukkal te di ko gërëm di ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ci barke borom taax Cheikh Rafal bés bi nag ñun ay tuut tànk lan maanaam mënoon na noo nekk ci leneen mais dañuy sant yàlla sant Sëñ Tuubaa ba mu ñu xiiree ci yoonam wi nga xamante ne bi ku nekk bëgg na caa jëm waaye du ko nekk ca mën a dem moom mooy tànnal boppam ay ñoñam kon bu ñu tànnee tey ban fas ko liggéeyal loolu ak cant la ak tawféex la waaye du sunu jàmbaar xam na bés bi ñu dëgmal ki ko doon liggéey soxlawuloon mbubb soxlawul dàll soxlawul dara léppam yàlla la yónnent bi kon ñun loolu moo ñu war kon bés bi ñu xam ne rek ñun ñoo ko moom jullit yi murit yi ak bépp taalibe ñu ngi ci woo ñëpp di ci yaatal ñëpp comme ni ko jëwriñ waxee rek maanaam ñëpp ci gox bi rek ñëpp daal wax dëgg yàlla yaatal nañ leen ci te di ñaan suñu borom nag mu defal ñu taw feex ba niñ ko mënee ren déwén ñu mën lu ko ëpp ci barke borom taak Cheikh Rafal ñu ngi leen siyaare bu baax di wàccee foofu kàddu tey tuub tey jégalu baax a baax baax. sëñ Mara ñu ngi jaajëfal waa daayira bu baax Miftahou Sahada ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne ñoon la ko leerale ci bis bi ndax boo déggee li mu waxee ne moom lañ tijjee bis bi rek xel dal na ndax sëñ Tuubaa mooy alquran ndax dafay wax ne fa man araadal qurba moo mawlaahu fal yaqari alquraan laa yansaahu sëñ Tuubaa nee na képp ku bëgg a jege yàlla del jàng alxuraan kon sëñ Tuubaa léppam alxuraan la dem na ba soññee ci wax ne kullu muridin fal yu dim tilaawatan li xayr sikrin xad usim sëñ Tuubaa nee na képp ku may tudde woo yaakaar ma na nga sax ci alxuraan foo mën a dëkk looy tàmbali na ko alxuraan tàmbali looy jeexal na ko alxuraan jeexal rawatina Serigne Saliou mi nga xam ne moom ngeen di sant nga dundam gépp da ko jeexal ci defar doomu aadama yeneen bi nee na képp ku defar kenn nit ba mu jub buñ jëloon àdduna li ci biram fayee la ko dabuñu la sëñ Saliou defar na lépp fukki junni nit kon tuyaaba jooju àdduna bépp mën na leen cee mën na leen cee fay loolu moo nekkoon yittee mu wut ay daara di fa yóbbu ay ndaw di leen tàggat ba képp koo gis ku bàyyi ko ci loxoom nit la koo xam ne dana xam yàlla xam àdduna loolu moom li waxoon ci ne tarbiya moom rek la ko sëñ Tuubaa jagleel ndax ni mu ci doxee. amul kenn ku Sëriñ Tuubaa jagleel loolu moom rek moo ci doxee dama gis benn bayit kuy way Sëriñ Saaliw di wax ne maanaam képp ku dem ca dëkkam ba di xel koom bu la fa pënd duggee rek tagoo nga ki bakkaar sa yaram aram na sawara te loolu daf ko jëlee Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dafa wax ci mat leen foo seen ne fa kullu man xadamani aw saara fa naj yi wax firloo aw saara nee na suñu borom képp koo xam ne ziyaare na ma mbaam mu mas maa liggéeyal lu liggéey ba tuuti tuuti ñaan na suñu borom mu tàqale ko ki bàkkaar te sëñ Tuubaa lépp lu mas a ñaan yàlla balaa xalima gee daaneel suñu borom nangu na ko kon bu yàlla dogalee ñu am taw feex dikkaat fii di waajal ak sant Serigne Saliou ne ñëpp gën a rafet njort bu baax. laja ca topp it mooy jàng xasida ndax xasida ak alxuraan kenn mënu leen tàqale benn lan ndax sëñ Tuubaa xasida yi mi ngi ko tànk ci biir alxuraan histoire musul nett li mukk ku jël arafi alquran di ji tëkk ay bind sëñ Tuubaa rek commencé def te mboolem ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa boo xoolee li tagg yonent bi boo ko xaymaa lépp lépp ëpp benn cinq kilos sëñ Tuubaa li tagg yonent bi amul kenn ku la mën a wax ne la xam naa fa mu tàmbali wala fa mu yem dafa mel ne ñun ñi doo dem ci géej gi rek sëpp suñu baaraam noon dong la mel ci taggi sëriñ bi kon buñ ca tegee xasida te sëñ wax ne li bal sasin min asasin qabilta xasaa idi kama laha bajelta ëllëg yomal xiyaam bokk na ci li ëpp yëngu li ñuy dégg yomal xiyaam mooy xasida Sëñ Tuubaa kon xasida yi am na dayo bu mag a mag la ca topp mooy bernde ndax Sëñ Saaliw xam ngeen ne cant gu mas a joxe ndigal jaamu yàlla ak bernde kon ñaar yooyu dañoo mënta ñàkk ndax dundal ruu ak dundal biir loo am am solo boo dundalee ruu yi ci alxuraan ak xasida dundal li biir yi tamit ba nu mën a taxaw lu am am solo lay doon te it moom bernde moom tamit sañ Tuubaa wax na ci jës bu fa kullu man xad xadara mawlidu afdalil wara mu asaman mu basharan bi sukarin aw laamin ñaar yooyu rek mooy bernde mooy kafe ak lépp luy saf suukar te dagan rek nga andi ko waaye wépp yàpp dagan yi nga andi ko ca bernde ga loolu jàpp naa ne mbir la moo xam ne munul ñàkk ci bisi yi kon ñu ngi ciy woo jullit yëpp képp kon yaa ngi dégg suñu woote bii lépp loo am ciw ñàq nga jéem caa barkeelu ndax doomu bokk na ci li koy fekk ëllëg buñ ko dencee ci bàmmeel mooy aw ñàq ñàq lu am solo la te fexe jël sa alal di ko def sëñ bamba amul lu ko gën ci àdduna waxuma la ak alaxira jëm jëm ndax sëñ Tuubaa lépp lu ko waay defal dana la ko téyal te bu ëllëgee bu la fayee nga rus kon képp kuy def sëñ Tuubaa da ngaa war a xër ndax moom mi nii lebal de am na fay ndax bu dul mooma dey li maam Moussa Ka wax rek bu doon demam gi wolof nasaraan te kon bi lay ñëpp dem niiraanu bu doon sëñ tey jii suñuy gétt ca sawara moo ko sempi rawatina ni ko jëwrin junjee léegi ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaol Mouridine nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Saliou lenn lan kenn mun leen xajale te Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne liggéey sëñ Baba bi jàpp leen ci bu ngeen jàppee dox bu ngeen jàpp dana dox waaye jàpp leen ci mu dox ngeen deseeg sag bi ndax suñu borom doxal na ko pare kon loolu warees na cee bàyyi xel bu baax a baax di waajal bés bi ñu ngi jaajëfal mbokk bu baax a baax yàlla yóbbuñ ci ak jàmm lépp loo xam ne waaye sàkk na ko ci moom jërul ñaan ndax sëñ Tuubaa moom jëf rek boo jëfee mu fay la kuy jëfal sëñ Tuubaa moom jëru ngaan ci am nangam booy jëf rek sëñ bi di la fay kon yaakaar naa ne ku ci tabal saw ñàq rek loola mooy doon sa seede ëllëg yomal xiyam kon ñu ngi ci ñëpp di jaajëfal waa daayira bu baax ci Pastef bi ngeen am ba taxawal lii ba def ko ñaar fukk ñett ñi ngi ñaan yàlla na lim bi gën a yokk lool mag ñu baax ñii fi nekk nga xam ne mooy magi jëwri yi nga xam ne mënuñoo ñàkk ci yoonu murit ñu ngi leen ñaanal ñu gën a gudd fan ndax mag dafa bu ngee ndaw rek ndaw fa mu jëm dana fa àgg kon ñu ngi leen di ñaanal ñu gën gudd fan gën leen a jàppale ci liggéey bi gën leen a gunge yàlla mën na ko sax fi dàkk munta am waaye yàgg fi lool mën na am kon yàlla leen fi yàlla yàggal lool kon mbokk yi nga xam ne yéen doon bàyyi xel Touba Vision ñu ngi leen jaajëfal bu baax ci woote bi nga xam ne ko doon woote fii ci Jagsaaw daayira Miftaahu Saada ñu ngi leen jox dig daje ba bis ba incha allah Touba Vision dana ko ànd ak yéen lépp luñ ci wane incha allah dana ko topp ak yéen ba mu mat wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هاديا ردا ما هوت ما قد ناو قلب من درر bijaayi afdal liman lillahi xad la jaa ma xawta ma xad naaw xalbu min dararin bijaayi afdal liman lillahi xad la jaa